jërë ngeen jëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee léegi rek di jaajëfal képp ko xamante ne yaa ngi bàyyi xel Touba Vision moo xam ci réew mi xam ci bitim réew ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a xamante ne yéen ñu koy tey ji nag ñu nekkoon fii nga xamante ni moom mooy Jurbel ci daayira xasaayid bi nga xamante ni ñoom ñoo féete fii di fi amal ñu amal ci liggéey bu sell boo xamante ni ci njiital Serigne Mamour Diop moom ñu xam ne ko mu doon moom ci xasida yi jiite yi ñi nga xamante ni mooy murit yi nga xam ne ñoo bokk benn pas-pas nekk fii ci diwaanu Jurbel Serigne Mamour lu bëgg laa dékk suñu këroo rek nga wax ñu tuuti rek ci wàccaayu bis bi ndax day mel ni bis bi mi ngi bëgg ami fan te day mel ni saa su nekk bu ñëwee rek jéego am ana bis bi ren ji nak ko waajalee hmm. waaw li ñu nuyoo mooy nuyoo wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di auditeurs yi ak téléspectateurs yëpp euh, xamal ni bis bi nga xam ni moom lañ def fii muy bis xasida njaareem bés boo xam ne ren mooy juróom-ñeenteelu at buñ koy def maanaam neuvième édition euh, ni ko tàmbalee woon tàmbale oyof nag wax dëgg mbooloo mu néew tàmbale ko waaye suñu borom jàpp ñu ba pas-pas bi ak itte yi ak baaxu waa dëkk bi def ba mën na ne bésu waa Njaaréem bépp la saa yu ne nag buñ koy waaj rek danañ gis bokku taalibe yi dem ci daayira yi dem ci daara alxuraan yi dem ci sëriñ si dem ci kilifa yi dem ci képp koo xam ne bëgg nga Sëriñ Tuubaa te mu ñu xalaat ni mi ngi ci yow ñu àgg ba ci yow loolu daal mooy li nga xam ne lañ ko waajee ren. te am nañ yaakaar loolu suñu borom dañu ci defal ndam la kawe sa njort ci barke Serigne Touba ñu nemmee ko fi pas-pas ndax day mel ni ginnaaw bi jumaa ji sëlmalee fajar la liggéey bi tàmbali ana loolu suñu juumul wàccaay dëgg la loolu naka la ko kuréel gi waajalee loolu programme waaw waaw xam nga dañoo gis ni moom dañuy bëgg saa su nekk di ko tàmbalee xasida gu ñuy wax nuru daare ni suñ paree si nuru daare di sof ci jaalibatu maraaxi bi buñ paree sof ci euh, mafaatihal bichri soog a wéy yéen xasida yi ñu gis ni bu fekkante ne dañoo bëgg tàmbali onze heures wala midi buñ deful ndànk programme bu du mën a dox loolu moo tax ñun moom li ñu doxalee mooy saa ñu jël sërmalee rek wax dëgg yàlla am ñeent ñoo xam ne wala ñett ñoo xam ñoo seq nuru daare bi ku jàng jox sa moroom noonu lañ ko sofee loolu nag ni nga ko waxee léegi pas-pas la rek ndax tam nit moom boo fekk na nga am programme bëgg koo respecté sa chronogramme li am solo mooy nga fexe ba naxanteeg waxtu yi daal heure yi nga xam ñëpp dañ koy nelaw nga jéem koo jug yow def dara bu ko defee mën na laa dimbale ba sa programme di doon naj ba tam doo pare di am looy looy looy rëcc wala yu demee noonu. Hmm. mbokk yi ñoo ko gisandoo noonu mu doonoon Serigne Mamar Diop macha allah ci kàddu yi am solo yi waaye day mel ni fii ñu taxaw mu doon beneen barab boo xamante ni buñ fi defee bis xasida yal na ñu def ko fi ndax fépp baaxee def bis xasida waaye rawatina fii ñu taxaw ah, nga dikkal ñu tuuti rek ci pàkk bi nga xamante ni fi lañ taxaw. pàkk bi pàkk bi mooy fi Serigne tubaa Mbacke def fukki at ak juróom ah, mën na ne ci ak dundam fii la gën a yàgg muy njaareem ñu gën ko xam ci bokkatul mbaarakati ah, li tax ñu tànn fii moo dañoo xam ne lu waaye defee Serigne Touba ci njaareem fu baax xëy na baax na waaye fii de koo gën te sëñ Abdoulaye Mbacke daan na wax ne def dara jàpp ni wóor na wóor na di wóor na moo ko gën kon ñun def ñoo wóor ni sëriñ Touba bu ñu ko def lii bësam bi fii moo ko gënal ñu waxtaan ceeg sunu kilifa sunu sang Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér mu xamal ñu ne liggéey boobu de moom ci boppam la waroon ak rakkam ju baax ji si Abdou Hakim waaye nag ginnaaw nag amul euh, ñun ñoo ko fi nekkal nañ fi nekk ci turam mu jox ñu kër gi yëpp comme daj amul fenn fu ñu bàyyi képp foo xam ne ab kees jox na caabi yi ni suñu loxo ñu yor fu ñu neex tëj fu ñu neex tëj loolu nag moo waral ñu tànn ko xam ne daal bërëb bi moom bërëb bu màgg la për la boo xam defee ko fi daal dafa gën a wóor dafa gën a dal xel te itam day gën a Serigne Touba daanaka loolu moo tax tànn ko. jërëjëf sëñ Omar mbokk yi mu doonoon sëñ Mamadou Diop xam naa ne noonu la léegi yéen programme yi nga xamante ni tey jii fas yéeneen am fii nga xamante ni moom mooy bis xasida bi nga xamante ni waa daayira xasaayid bu Jurbel ñoo ngi koy amal ñu fas yéene lépp loo xamante ni am na fi rek Touba Vision indil leen ko nees suudi kon ñu dikkaat ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh